mbokk yi Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar tey nag dañ doon doxantu rek maak Talla Ndiaye ba dugg yaraax fekk fi Moussa Ndoye le grand champion borom le 28 avril wala moo garga ñoo moom le 28 avril xaw ma nag bu bés ba tasee ku yóbbu mbir ma mais mbër man dama laa namm sax dama la gëj a gis maa am nga jàmm ba sant yàlla bu wér <laughs> Moussa yaa ngi muñ da di reetaan waaw sama xel dafa dal ah. waaw sama xel dafa dal lan moo dalal sa xel waaw parce que bii su mbégte la da nga ma fekk sama dëkk waaw mu yaraax ma nekk ak sumay kilifa nekk ak sumay rakk nekk sumay mag nekk sumay sumay am di jàmm kon boo ma fekk see sama xol war naa sedd waaw. mu mel ni su ma dellusiwaatee en arrière tuuti am na loo fi waxoon am na lu fi Garga Mbossé waxoon mu mel ni nag mbir ma fi mu nekk nii leer na yow defe naa da nga doon Garga da doon moytu sa combat ak yow. waaw moom bañoon moo bañoon moo bëggaat. daa bañoon ba la yàgg moo bëggaat waaw. lu tax mu bañ bëgg. ah xëy na dafa am stratégie la si moom rek waaw. est-ce que est-ce que Moussa Ndoye kenn bañ ci làmb est-ce que loolu wóor na ci yow mu bañoon la ba benn moment mu xëy xëy bëggaat la. man awma lan lu mu luy wóor si man lu mu ñàkk wóor si man man sans dépense ñi may tàggat bu ñu ñëwoon dimanche la dimanche la man ñi may tàggat rek. est que garga romb la woon tax mu bañoon na du bëri ak yow. mënumaa romb garga la dafa dañoo bokk ay adversaire tey euh, bébé Saloum da ko daan ma daan bébé Saloum mu daan tonnerre ma daan tonnerre mu daan la grosse ma daan la grosse kooku lan lañ. bu romb doon am ku romb man ndax ma trois victoire moom mu am benn défaite ak ñaari victoire parce que garga kii moo ko daan Bébé Saloum moo ko daan mu ñëw daan Bébé Saloum 2000 2006 waaw kalaaf waaw le 6 mars Eumeu Sène Gris Bordeaux waaw match laa daan Bébé Saloum waaw mu mel ni kon léegi werante wa jeex na ak lu mën a xew lekk nga avance mu lekk avance ngeen war a bëri pour le 28 avril avril la waxoon na sànq waxoon naa sànq nii le 4 avril mooy suñu indépendance avril bi suñu avril la si kàttanu yàlla ndax dañuy ñëw jël sur indépendance écurie fan si euh, écurie Yaraax école day jël si indépendance am si làmb ji yow indépendance jël si ko ci Garga Mbossé yow dina yomb ci yow ci kàttanu yàlla loolu laa ñaan yàlla mu yomb lool ci defet la jógee de yaakaar naa ne waaw man ci victoire laa jógee sant yàlla yàlla na yokk est-ce moo xam ne dafa jóge ci defet daaw defe naa jotul a ngeen war a yéen ñaar nga yaakaar ne li nga est-ce que yow mi Moussa Ndoye tey nii li nga yëg ni yëg nga ne Garga Mbossé ba addu suuf le da nga ko fay jëlee tonnerre trois teg la ma jël ko jox ko quatrième Lac Rose tegle deux défaites ma jox ko troisième moom mu tegle benn défaite dama koy jox deuxième. noo ko koy joxe. ci kàttanu yàlla bëre. xeex wala bëre wala. no de ñun moom suñu entraîneur moo ngi nii moom mooy wax li mu war a yóbbu. Garga mbapatkat la de. non man lu ñëw rek baax na parce que man man li ma mooy li ma wax man suma entraîneur lépp lu ma nit di nawee moom kii moom ko def si man. lépp lu nit di nawee Moussa Ndoye xadar bëre lépp lu jëm si waxtu côté lamba kii moo ko def man. et puis yow fan nga tegoon ne garga daf lay moytu wala daf laa ragal. non moom moo waxoon rek ni Moussa Ndoye du du ma du ma ak moom man loolu sax vidéo bi seetaanu ma ko ma interview man yàlla dafa du ma samay mbokku mbër ndax da du ma suivre si moo tax du wax wax ju bari yàlla booleel ma jël la bëre yow te suñu su may bëre yow damay ñaan yàlla may ma ndam seen combat taxawal ko yomb na jafewul si man déedéet man benn fan lañ ma woo ci la am waaw am na loo koy adressé garga mi nga jàkkaarloo di wax ak moom. amul lenn lu ma koy muy yàlla na yàlla may jàmm ak wér ak wérle le 28 yàlla may ma jàmm ak wér ak wérle mu ànd ay mbokk mu ànd mbokk yàlla may ma dem ci kaw am na looy moytu ci moom. dara. déedéet waay. non su ma naree tiit wala may am lenn lu may raf si làmba billahi barki Seexu Tijaan ma toog si ma toog yarax. garga amul lenn looy raf ci moom. non amul lenn lu may raf si garga Mbossé. borom séeréer la de. barki Serigne Babacar si tiituma ko. man sama entraîneur séeréer la man it séeréer la séeréeru lébu la. kon daal bés boobu comme la ma waxoon rek sa diggante lagros. ñëw cosaan cosaan muy ñëwaat. day déclaré Moussa Ndoye dama indiwaat leen lu bees naan chaque combat ak lu bees ren ala cadar la. ala ala cadar. luy ala cadar. dañ ko xam. ala accu de laa daan dégg. non ala accu bi nag ala cadar day teñ. teng teng teng entraîneur ko wax laaj ko laaj ko non laajal coach coach day su nga ne ala ajar mooy la ala cadar mooy la ah, juróom lañ koy confirmer rek inshallah waaw yow sa mbër boo xoolee parce que mën nañ ne mois rek moo si des wala mooy de un mois sax est-ce que physiquement fi nekk nii Moussa liggéey na lu mën a daan Garga waa ñun da nga fàtte booru géej lañ dëkk ah voilà ah, mais bokkul lan mooy différence bi différence moom moom moom kosam dafa xëcc te ñun daf ñu jege géej gi moo ñu jege waaw da ngay génn rek entraîné hmm. waaw danga fàtte lébu lañ séeréer lañ garga mën na xeex mën na bëree de cosaanam du ndox séeréer la mais kaw bi la dëkk fii mais ñun du ndox lañ dangaa xam fu mu dëkk <laughs> jarul ma koy wax yow Moussa Ndoye xam nga fu garga dëkk xam nañ ko bu baax fan la dëkk kii baasu la dëkk rakku Yékini la lu mu bokk ak Yékini mu ngi nii laaj ak Yaxya yow Yékini ñoo bokkul lépp lan da ngeen bokk ndey ak wala da ngeen bokk ci ndey wala ci ba sam papa nijaayam la Mm, ñoo bokk benn dëkk baasul ñaari côté la Joal la baasul la Filissière teg si voilà lépp ay ndox ñoo mu wër moo tax ma la moom bokkuñu. kon daal su ma déggee Moussa am na problème kële Garga daa mel ni suur ba incha allah rek. yow noo yaakaar ne noonu nga mën a daanee Garga parce que man Garga maa ngi imaginer nan nga bu dee ci li nga gëm yow ne nga da koy daan noo ko nan ci nan ngeen mbapat Garga mel dugg na fii koñ defi mbapat est daan nga ko fi yow Yaraax bi mu duggee si mbapat mi bi mu ñëwee mbapat moomu maa ngi koy bu baax bu ko indi woon Pape Ba moo ko fi indi woon xaritu Zos la ki ko fi koy wax sama mooy mooy patron suma benn doom fi ñu toll nii suma xarit la Pape Ba maa ngi koy bi ko Pape Ba ma war a fekk may bëreeg Eumeu Sène senior ma nekk si contrat war a bëreeg Eumeu Sène senior am blessure taxi mbapat moom dafa jeex ñu teg ci trois jours fii am mbapat fi ñu taxaw tey fii fii ñu baxaw si baas bi am mbapat maa jël mbapat mii mbapat moom bi ma bi ñu ngembee ñëw dañ ñoo saagaar ni ñu kam leen ngeen ngembu ji mbër du fi dugg si moom ak sarko la woon dañoo génnaat bëreewu ngeen kon Zarko naar naar doomu tubaabu joor ñoom ñëpp lañ nekkoon boobu xanaa du ma la moom sama troisième combat arène may doogam dugg si arène bi. sama bëre bëri na bés boobu. na. bëreewu ngeen yéen non bëreewuñu ko daan kee koro xaw ma sax ko daan ba mbaparam dafa toj àggul waaw mbaparam dafa toj àggul kon yow daal dafa mel da nga xam secret waa ji non du secret sax dañ yàgg daje yaa ko ko andi woon sa xaw ma sax lan sa xarit la léegi xaw ma ko kii indi woon waaw Pape Ba Pape moo ko lañ parce que booba yaraax amul yu tax ñuy wax parce que ay booy lañ booba gëmuñu ñu mais dem nañ ba sant yàlla lépp topp suñu ginnaaw loolu liggéey moo koy may kon daal Moussa le 28 avril le 28 avril à la Thiadar du yomb waaye rax yëpp dinañ ñëw à la Thiadar